di leen ziar yéen ñi suivre sport ñu war a ñëw ci benn vidéo wax ci Sadio Mané bi nga xam ne waa Bayern Munich euh, dañoo noppi euh, pour jëlee ko fi nga xam ne mooy seen maanaam jëlee ko fi nga xam ne mooy ndax gis nañu Sadio Mané euh, xëy na jour bu am talent la mais nag bi mu jógee ci Brésil ba léegi forum bi ñu doon xaar ci mu ñëwaatugul te gis nañ ne bi ñu yor. Euh, ñi ngi koy départ lool sans Sadio Mané des di ci moo tax daal ñu jàpp ne Sadio Mané war naa mën a jóge fi nga xam ne mooy Bayern Munich laata yu ñëw ci Sadio Mané ci gën a xuus dañoo yéen ñi ngeen ci page bi ngeen abonné te nga bës ko notification bi pour ngeen fi ay vidéo au tara fi Sen Sport yi Sadio Mané ngoog Bayern Munich ngoog malgré dugal na tolloog ci douze bi jëm kaw te euh, dafa Brésil tolloog trois mois quatre maanaam saison bi xaaj bi la foofu wóorul xaaj bi jour boobu te waa Bayern mi xëy na euh, dañ ne dañ ko bëgg a jaay mu nekk jour boo xam ne Chelsea pare nañ def offre bu rëy rëy pour jënd ko ak salaire bu nga xam ne mooy Bundesliga mu dem beneen club bu ko bàyyi woon na mu commencé woon démb ba ko may état mais blessure moo ñëw joueurs yu bëri mu ci jaar dañuy dañuy perte na ko Real Madrid may ko temps de jeu bu yaatu muy titulaire chaque jour du jeu max bi jeex léegi ñu ci ay euh, ah, bi club dóor na 5 mais bu football nag ku nekk sa intérêt ngay xool Bayern seen intérêt la xool mais ñun suñu ñaan tamit dañ ko xoolee intérêt mu dem club mu titulaire rek ñun loolu moo ñu kon gars yi leen leen partagé et ñuy suivre Mon Sport Euh, merci beaucoup am ngeen jaajëf bu baax a baax